jërë jërëjëf ko téléspectateur yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës tañu dama ko jukki daañu ko door ak lu soxol làng ko politique fii ci réew bu Sénégal jàpp leen ne itam fédération département bu PDS ba nga xam ne ah, moom moo nekk ca diwaan bu Tiwaawan ak loo ko wër ñoom ñooyee nag bañ nañu ba su tëdd ci ñag ba ne rek lu soxal wàllu reportuk du ñu ko amal ci mim réew maanaam ñu dàq yi nga xam ne ah, moom moo di ah, élection yi ca assemblée générale boo xamante ni ñu ngi ko doon amalee ca Mexe daañu dem foofee nga xam ne moom moo di ca bët gànnaar bu réew bu Sénégal wax itam ci journée mondiale de la jeunesse xam ngeen ne itam euh, atum ren euh, ndar géej moom moo dalal ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi lim bu takkoo takku euh, ñoom ñoo fa nekk gis ngeen kon noonu ca stade Mawade Wade diwaan bu ndar géej ñu ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo ñu fa nekk daañu dikk ak ñun ci li nga xam ne moom moo di xew-xew bu ni mel ca diwaan bu njaareem lu toll ci 300 dépôts illégaux yu pharmacie lu ni mel itam jaaxal lool xeluk ñi nga xam ne ñoom ñoo fay yeewoo ca diwaan bu njaareem njeexital itam dinañ ci def ab taxaw seetlu euh, ci jotaayu xibaar yi daañu waxtaanee wàllu tàggat yaram xam ngeen ni ki ëllëg incha allah la gayndey Sénégal yi wala laale ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di waa Côte d'Ivoire mu nekk match woo xamante ni euh, daanaka ëlëm na xeluk askan wi ñu bëri ci ñoom tax na itam suñu ay ndaw euh, ñoo nga foofee ngir daal di teewee li nga xam ne nag moom moo di conférence de presse yi nga xam ne sélectionneur bu équipe nationale moom Aliou Cissé dina ko amal léegi léegi lay doon daañu dem fa nga xam ne moom moo di ca Ndiogoy ab village bu ndaw la woo xamante nii ma nga nekk ca commune bu Thiep département euh, bu euh, Kébémer localité wu ni mel xam ngeen ne lu soxal wàllug euh, mbay dër mi am na fa doole lool waaye tam lenn ci ay njeexital foofee daañ ci dikkaat nu mu gën yaatoo bokk na ci li nga xam ne daañ ci wax ci région yi gëstu bés bi itam daañ waxtaanee li nga xam ne moom moo di wàllu infographie xam ngeen li ko waral bëri na ci ay mayo yoo xamante ni nag ci la jamono ñu ngi koy floqué suñu ay ndaw itam def cee awa signaté la ñu ciy àndal mbokk yi tënk yaa ngoog bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram fàcce ay wax ñu door ak langu politique bi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu fédération départementale bu jàpp jàppale ne ñoom ñooy euh, wax lépp lu euh, soxal dàkkuk élection présidentielle atum 2024 nag loolee mu ni suñu ko dégg euh, militant ak itam responsable yu département bu yu Tivaouane ci aw ndaje boo xamante ni nag ñu ngi ko doon amal lu soxal itam mbirum Karim Wade bokk na ci seen ab waxtaan Cheikh Anta Diop ak Seylatir reportage lii ñuy ruumandaat ci suuf di ko wax ci kaw ngir ñu toxal élection yi waa fédération départementale PDS bu Tivaouane nee nañ ànduñu ci amul dara lu mën a tax ñu toxal élection yi d'accordun benn yoon ñu fomm élection yi nga xam ni war naa am le 25 février 2024 waa fédération départementale PDS bu Tivaouane nag nee nañu ànd nañu ci waa groupe parlementaire bu wàllu PDS ak ñi moo àndal ñu tab ab commission d'enquête parlementaire ngir leeral lii ñuy romandaat naan dafa am ay magistrats yu ñu ger commission d'enquête ab dëkk moom bu amee aw yoon yoon woowu nga man cee jaar ba am li nga bëgg ah nga ci jaar loolu rek nag la waa PDS def xam naa di ngeen ni ah fast track bi de moom doy na waar ni gaawee mais parce que parfois soo ñimee cité nommément ay magistrat ni diw ak diw da leen corrompre mais loolu c'est tellement grave que suñ deful enquête on va vers ou waa PDS ñoom ñëpp ni xaacu nañu ne nag kii di seen leader di Karim dafa war a dikk fii ci Sénégal bu ko defulee de mel na ni trahir na partie bi bépp fédération bi wax wala section bi wax looy wax Karim daal na ñibbisi parce que caaxaan yi nag fi mu nekk daa jeex beneen position boo def bu boobu du lu jaadu je l'assume la wax. leneen lu mu def lu daal ñëw ci réew mii mi ngi nuy tooñ ñun waa PDS. bu ñëwul nag jàpp naa ne l'histoire retiendra que il nous a trahi nous les militants du PDS et je l'assume. ay responsable militants yu PDS nag jóge woon nag ci gox yu bëri fi mel ni Pekes ak Ngaye Mexe ak dëkk yu bëri ci département bu Tivaouane daje woon fii ci Ngaye ci assemblée générale bi ñu doon amal la. Euh, diwaan bu Thiès ak la ko wër Cheikh Anta ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko ginnaaw Thiès ak la ko wër ñu wutali bët gànnaar bu réew bu Sénégal Ndar Géej journée mondiale bu jeunesse xam ngeen ne atum ren foofee la ñu amalee lu ni mel mbooloo mu takku itam euh, ñu nga foofee ñu dem ci stade Mawade Wade diwaan bu Ndar fekk fa suñu ndaw la nga xam ne moom moo fa teewal euh, télévision Futur Média Ousseynou mu mel ni ca stade boobee nga nekk lan lañ mën a jàpp ci aw xibaar. ma wadd wadd bu diwaanu ndax gi xam ngeen ni fii la ñuy amalee mais solennel bu JMJ. Euh, Benoît ñu ngi lay euh, nuyu. jërëjëf jërëjëf ñu ci ñu ngi lay fay Ousseynou. alors lan la ñu mën a jàpp tey jii ci journée bi. waa tey euh, dimanche vingt huit janvier deux mille vingt quatre mooy jour bi tombeek la mais solennelle des journées mondiales de la jeunesse. journée mondiale de la jeunesse boo ko déggee pape Jean Paul II moo ko initié woon suñu pape boobu. bëggoon ndaw catholique yi fépp ci Sénégal et fépp ci àddina sax ñuy mun di daje di saafonte di xamante ñi dëkk Tamba xamante ñi dëkk Thiès. la région de Saint-Louis et la région de maatam tey dama gis ni si discours yi nga xamante ni tey kilifa yi ñu ko doon jox bokk na ci xale yi ñu gën a gëm seen bopp. jaadu ñu dajale leen ci ay xew-xew yu mel nii am waxtaan ak ñoom boo gisee bi jeunes yi accès. depuis ajjuma lañ ñëw mooy depuis vendredi ñu loger leen ci école yi di waxtaan ak ñoom mu am ay catéchèse mooy catéchèse euh, mooy ñuy waxtaan ak ñoom ci benn thème te thème bi mooy ce qui marche et espère dans le Seigneur marche sans se fatiguer euh, maanaam nit ki yow boo yaakaaree ngëm ci yàlla suñu borom war nga mën a gëm sa bopp mooy te doo ci mës a tàyyi xam te ñuy gis nag jeunes yi léegi nga xamante ne Euh, ñàkk nañ yaakaar ñàkk nañ espoir ci dëkk bi xam ba tax di jël gaal gi di dem ba tax bon vraiment ci ñuy def naka su dul noonu boo donc xew-xew yi bu amee dañ leen di dajale xam waxtaan ak ñoom ñu gën a mën a gëm seen bopp. ñu gën a mën a féddali seen cofeel ci yàlla suñu borom ci gën a mën a xamante mooy gën a mën a saafonte mooy gën a mën a dëgëral seen bopp euh, ndax. ci euh, kii ñoom ñooy avenir réew mi ëllëg voilà jërëjëf. merci beaucoup alors jërëjëf ñuy fàttali ni Birima Sène mi ngi bokk ci comité d' organisation bu GMJ bokk ci wàllu administration bi kon gis ngeen lu jëm ci wàllu euh, li nga xamante ni mooy mes bi mi ngi wéy xam naa ni ba ca kanam incha allah rabbi euh, daañu mën a dikk yéen ci lépp loo xamante ni jóge na fi ci ay information ci xibaaru ngoon gi li ñu mën a jàpp daal mooy GMJ ren jile ci diwaanu Ndar geeg yi nga xamante organisé nañ t li ñu mën a gis mooy organisation parfaite lañ fi gis mu nekk nag mbir moo xamante ni mbir mu desiwaat ak yéen incha allah rabi ci kanam. jaajëf Ousseynou Diop ca diwaan bu Ndar Géej mbokk yi ñu waxtaanee wàllug caada barab boo xamante ni itam euh, des na ko euh, amal ngir rek lépp lu euh, ñeel wàllug xel ak xalaat gën a màcc ñu ngi ko dippee dalluk xeltu ak koom di loo xamante ni itam jëruñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu caada fii ci réew bu Sénégal gis ngeen ko noonu itam jéego yi nga xam ne daal nañ koy ci def barab boobee nag ma nga ca maison wu culture du Sec lépp lu soxal itam budget wuñ ca sóob ëpp na benn milliard euh, ci suñu ay euh, koppar Ibou Diouf ak Lamine Diagne ñoo fa teewaloon télévision Futur Média Cet espace est dédié aux acteurs du monde des industries culturelles et créatives, un incubateur culturel pour donner sens à la logique entrepreneuriale au service de l'art et de la culture. Il s'agit de proposer aux porteurs de projets dans l'art et la culture un lieu pour tester leur modèle économique et se former aux défis de l'entrepreneuriat. Le marché culturelles ou les industries culturelles ne vont pas sans aujourd'hui a transformé tous bi ñu duppee dalu xeltu ak koom ñu jagleel ko ñëpp ñiy yëngu ci wàllu industrie culturelle ak créative lu ñu bëgg nag gën leen dooleel ci seeni projet ñu ànd ak xam-xam bi war ngir ñu mën a taxawal liggéey boo xamante ni dina leen jëriñ. mbirum koom gi dañ koy yàgg fàtte wala dafa yàgg naax saay te bu ñu nee industrie culturelle du rek mbirum mbumbaay fecc ak loolu dafa bëri dafa yaatu suñu taarix la suñu suñu suñu histoire la lu bëri la loo xam ne lu ñu war a euh, taxawal la daal di ko tëgg ñu xalaat ko donc bu ñu xeltoo ba pare ba gis koom ji donc incubateur bu ni mel dina tax képp ku yëngu ci wàllum aada gis boppam ci professionnalisme gis. naka la ñuy fexe ba ñooñu seen xam-xam boobu jëriñ leen bañ mun di taataan ci koom-koom nekk aussi luy gën a ñoŋal koom-koom. ci lañ ñeen dañuy tànn dinañ ci loolu junneey million ak ñetti téeméeri million le président jagleel loolu pour ñu tànn ay boroomi xam-xam ak ñu xereñ ci yoon tànn bu set wecc bu leer nañ lay doon. dalub xeltu ak koom xalaat la boo xamante ne rek dina may képp ku fi ñëw nga am xam-xam ak itam jumtuwaay yi nga xamante ne moom nga soxla ngir wéyal say activité ci wàllu cosaan ak aada ñu ne nag lu am solo la ndax bu weesoo nag entreprise yooyu. mën na ànd ak koom. ñu tànn ay boromi xam-xam ak ñu xereñ ci yoon tànn bu set wecc bu leen nañ lay doon ñu tàggal leen ay weer yu bëree bëri naka la ñuy defaree ab projet naka lañ koy yore naka lañ koy euh, euh, sayto ba nga xam ne da ngay joyante li ci war loolu mun laa jural yow nga moom sa bopp ci koom-koom na sa bopp mën mënal say ñoñ mënal ñeneen. loolu la ñu doon ubbi tey mooy ubbi daluwaay bi lancer ubbi projet bi ba pare nag ubbi également euh, jongante bi ak. te pour ñu tànn ñi nga xam ne ñoom ñoo am li gën a méngoo li gën a baax pour ñooñu ñu commencé ak ñoom liggéey bi. incubateur bi nag ñu duppee dalu xeltu ak koom mu ngi ci maison de la culture Douta Seck ñu ne nag am na lu tollu ci benn milliard ak lu toftal ci suñu xaalis boo xamante ni jagleel nañ ko projet boobee liñ ci jublu rek mooy gën a taxaw ñëpp ñi yëngu ci wàllu culture rawatina ñi feete ndaw ngir seen yëngu-yëngu ñu mën ci gis seen bopp. Ibrahim ginnaaw wàllu caada fii ci réew bu Sénégal ñu waxtaanee wàllu tàggat yaram CAN Côte d'Ivoire 2023 xam ngeen ne ni ki ëllëg yem ak altine euh, gaynde yi Sénégal yi daañu euh, laale ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di euh, éléphant yi xam ngeen ne moom Aliou Cissé sélectionneur bu équipe nationale bu Sénégal ci kanam tuuti wala bokk ci la jamono ma ngay janoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di way taskatu xibaar yi suñu ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo fa teewal télévision Futur Média Mamadou Ndiaye Mame Fatou Ndoye ak Missa Ndoye ñàkkul ne laataa ñu yëkkati jotaay wi daañu amal ak ñoom ci euh, li nga xam ne moom moo di euh, jotaay bi wala bokk ñu dem ca euh, Côte d'Ivoire fekki fa ki nga xam ne moom moo di moom du Ndiaye ñu baaxe ñu ana lan moo fa xew ci jamono yile Mamadou Ndiaye moo ñu teewal ca euh, Côte d'Ivoire léegi léegi dinañ waxtaanee li nga xam ne moom moo di euh, conférence de presse euh, bu avant match yi nga xam ne nam nañ ko amal suñu diggante ak réew bu Sénégal ñu des ba tey ci boobule match mu doon aw duel boo xamante ni daanaka ñëpp ñu ngi koy xaar suñu diggante ak réew bu Côte d'Ivoire nan la match boobee fas yéene tëree laaj la woo xamante nii samp nañu ko ci élément bi lee nga xam ne Ibrahima kan def na ko ñàkkul daañu am tontu lii 4 à 0 y ñu gàcceel leen ci seen biir dëkk ñay yu ko d'Ivoire jamono ji ci nen lañu toog mu mel ni dañ leen puus ba ñu sës di leen kekkantoo ak a këll-këllee ci tindu Afrique yépp gannaaw bi Coupe d'Afrique bi tàmbalee te moo ne day ay ñoñam ba léegi dara mën guñ ko ci wante nag ñu moytu tromp ñay wi bés bu la ko dóoree mën na metti te mën na indi sax gàllankoor ci gaynde yu senegal donte nag gaynde sax mooy buuru àll bi jongante gi altine ci diggante ñay yi ak gaynde yi nar na doon lu metti ci ñay yi ragg seen der moo leen ci yitteel wante gaynde yi ñoom ba léegi nag rëbbaguñ sooy ku ñu dajal rek mayuñu la dara gaynde wóolu dooleem lool taxaw temm nag bëgg dëggal ne moom mooy buuru àll bi ñu ànd ak ay gaynde yu ndaw seen biir gaynde yooyu sax Afrique yépp ju leen nangul gaynde sax rëbb moo ko yitteel rawatina bu marax gi maase nga xam ne nag tàngoor gi dafay wàññeeku mu di xibaar bu neex ci gaynde yi ndax jongante bi juróom-ñetti waxtu ci ngoon si bu ker gisee dee lañ ko jàpp bokk na ci doole gaynde yi mën a xaar déglu seen adversaire résister itam pression bi wante nag ay buñ lay song sa kaw lañuy dalandoo dalandoo wër la laataa ñu laa doggali ci altine gi nag kon dal woyof lool bokk na ci arm yi nga xamante ne ñoom ñooy daal di mën a jël ñay yi faagaagal leen bu baax a baax laataa ñu leen di dugal ci seenub sërke yi denc leen fa ba faw Ibrahim wax nga ko gayndee du rëbb sooy ni ki ëllëg la match wi diggante réew bu Sénégal ak itam euh, Côte d'Ivoire waaye jàppale ne euh, conférence de euh, presse avant match wi saa su ne dañu koy amal Alioune Cissé moom sélectionneur bu équipe nationale bu Sénégal ci les jamono Mamadou Ndiaye ma nga ca boobule Sall Mamadou lan lañ mën a jàpp ci les jamono. <laughs> mais li ma si mën a wax rek maa ngi lay maa ngi lay nuyu maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax di profiter vraiment ci conférence de presse bi pour nuyu Sénégalais yëpp fépp fu ñu mën toll ci àdduna di sàkku ñaan ci ñoom euh, di leen gërëm di leen sant ci seen ci seen taxawaay si seen ñaan boo xam ne ñu ngi koy yóbbu ci ci ci équipe nationale bu Sénégal bi. wax dëgg la euh, suñu ñaari match yi ñetti match yi ñu def vraiment euh, match yu am yu am solo la yu yu am importance la vraiment ci jeu bi ci résultat bi mais surtout ci bëccëg nañu marqué tamit mais ko moo ko waxee sànq ci kanam national rek tey euh, loolu yëpp si suñu ginnaaw la nekk parce que tey muy Côte d'Ivoire nga xam ne 3 points moo tax ñu qualifié ñun 9 points tey mën naa wax ni ko yooyu yëpp amatul importance lu am importance mooy que ñu ngi ñu ngi boo xam ne élimination directe la bu ñu gagné. yàlla mën na def ñu continuer bu ñu perte dañuy ñibbi donc mu nekk équipe boo xam ne tamit dëkkam lay joué ak ay supporters mu nekk équipe bu baax tamit équipe boo xam ne am na ay joueurs yoo xam ne joueurs yu baax lañu donc euh, xam naa ni que match bu bu metti métti lay doon waaw waaw match bu métti lay doon waaye ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla may ñu si ndam di sakku ñaan vraiment ci Sénégalais yi fépp fu ñu nekk am ñu yaakaar daal yaakaar yàlla na yaakaar bu tas. mu nekkoon euh, Alioune euh, Cissé ngeen doon teewlu ay kàddoom waaye du Ndiaye euh, mi ngi ci boobule salle ñàkkul ne ci suñu yeneen jotaayu xibaar daañu àndaat ak moom ci les mën a jàpp ci la jamono fa nga xam ne nag moom moo di ca réew bu Côte d'Ivoire mbokk yi ñu àddu ci leneen maa ngi leen ko doon junju ca diwaan bu njaareem lu ëpp 300 dépôts illégaux yu pharmacie lu ni mel itam xam ngeen ne. bëri na ci ay njeexital yoo xamante ni nag dina ko def ci askan wi tax na ñi yëngu euh, ci wàllu wér-gu-yaram ñoo ngoy artu ci yële jamono Babacar Diouf. yoon wi garabu docteur yi waroon di jaar dafa mel ni dañ koo déwiyee ci diwaanu Njaareem fii de dépôt illégalu pharmacie yi dañ fee bari lool la regroupement des pharmaciens de la région xam xamle. dëkk boo xamante ne euh, mbirum garab daf fi xaw a sooxe ndax dafa am ñuy tijj ay boutique tuddee ko pharmacie di jaay garab te amuñu si ndogal amuñu si xam-xam amuñu si ndigal. dépôt yooyu nag danoo toog fi nga xamante ni fa la ñu gën a soxlaa garab ñu ne fa déjji toog fa te kenn mënul ci ñoom dara. demee ci ci ci buntu kër docteur yi muy hôpital ak centre centre de santé yi foofu ngay gisee la fa la ñuy gën a concentré wu. ndax foofu maladie xëy na bu fekkente ne am na rupture ci pharmacie hospitalière bi wala. officine am rupture rek ñoom dañuy daal di am jéema am médicament yi di ko jaay te noonu ñu koy jaay ñoom dara engagé wu seen responsabilité. dépôt yi mel ni garab yi ci ciy jaay sax kenn du ko contrôler ba loolu dafay am njeexital loo xam ne ni baaxul ci askan wi. warta am ci garab. ndax garab dafay loo xam ne si nit ki da koy dugal ci biiram ngir mu saafaraal ko ay jàngoro léegi nag saafara su jur jàngoro nag médicament yooyu mën na ko waral ndax d'abord mën naa doon médicament yu baaxul ko defee du ko faj jàngoroom di wéy mën naa doon itam médicament yoo xam ne si dafa dafa am posen ci biir nga xam ne bu ko médicament malade bi jëlee au lieu que mu koy faj da koy da koy da koy gën a da koy gën a euh, woppal. lépp lu bon ci garab yooyu ñuy jaay ci circuit parallèle yi askan bi ñu ngi koy yëg ci seen wërgu yaram fa mu toll nii. tey boo xoolee Touba tey maladie chronique li ñuy wax maladie chronique maanaam di jabet lii di hypertension lii di euh, feebaru dialyse nu mu bëree Touba mu ci ëpp. loolu moom moo ko waral ndax euh, garab yu bon yi ñuy jëfandikoo day yàq roño bu yàqee roño daanaka feebar yooyu yëpp dañuy mujj installé wu. wala koo xamante ne dafa war am feebar yu chronique yooyu war a faju war a jël garab yu baax pour pour wér bés bu jëlee garab yoo xamante ne naka su noonu la donc finalement euh, feebaram day yokku te su te su boobaa ma détaillé. wante nag fi na nii yaakaar mën na am ndaxte agence de régulation du médicament nee nañ loolu le faw mu jeex ci diwaan bi. rôle am donc di donc di fexe ba nga xam ne fonction réglementaire bi dinañ ko appliquer mais également ñuy contrôler le secteur de la pharmacie mais également fexe ba nga xam ne loi yi nga xam ne dañ ko def pour pharmacie yëpp loi ñu gën ko appliquer te du am benn loraange ci ñëpp. ndax dinañ ko mën a jeexal wala duñ ko mën lu ci wonte xew. bés yii di ñëw dinañ ci xam dara. aywa ñu des ci ñaareelu pàcc xibaar yi wax ba tey li nga xam ne xew-xew la ci région yi ñu dem fa nga xam ne nag moom moo di Thiongogoy ab village la boo xamante nii ma nga nekk ca euh, ceeb département bu euh, Kébémer foofee xam ngeen ne mbayub ndër mi euh, doon na lu fa am solo lool waaye itam bëri na ci ay njeexital yoo xamante ni ñoo nga ca ginnaaw Thierno Fall. fii ci Ndiogay di benn dëkk bu féete ci zone des ñaay mbayum dër am na fi doole lool muy nag activité bi nga xamee ni moo ëpp doole ci li askan wi di dundee. li ñuy dundee lépp si mbay mi lan ko yaakaar fi ñu toll jamono yi ñu tembani temb lan bay am na ñu fi bay soble am na ñuy bay kaani salade bari na lan fi liggéey. boo demee ci ginnaaw kaani salade bi mu ngi foofu toolu soble yi mi ngi foofu toolu pomme de yi mi ngi foofu te lépp ci dëkk bi la kon dëkk bi boo fi ñëwee rek. xam ni ñu ngi liggéey mais doole lañ amul. waa dëkk bi donte ñu ngi góorgóorlu ci mbay mi ngir am lu ñu dundale seen njaboot waaye nag bëri na ay jafe-jafe yu nga xamee ni si moom la ñuy jànkoonteel ci seenub liggéey. bi may ñëw fi maa ngi 44 millions waaye nag loolu lépp itam ci am na foo xam ne ci coono lay laajaar ndax coono yi dangay dem ba xaalis bi jeex te garab gaawu la ñor. li nga war am si moyen pour liggéey. amoo ko da ngay manqué tos manqué engrais amoo kenn ku la jàppale te ay jeunes lañ yoo xamante ne bu ñu amoon ñunu jàppale dinañ mën a dem. seen jafe-jafe yooyu nag bi ci gën a mag mooy ñàkkum courant ci dëkk bi nga xamee ni moo tere seen forage bi mën a dox ni mu waree Aline Fall Jogoy moom ab tool bu mag la yore ci dëkk bi waaye moom day jafe-jafe la am ngir mën a dundal garab yi ndax ndox mi doyul. ndox doyul te itam ndox bu doyul la nga bëgg a liggéey doo ko liggéey fi mu ne tool bi mi ngi ni dix hectares la mënatuma yokk fenn maanaam dix hectares yi sax moom lépp mun la màndi ndox. tey xoolal sa dodo bi gis nga ko ay xaalis bu bëri la ci financé ay salaire ñoo fa nekk ku ne xam na ni salaire bu jant bi xasee dugg dootul dox moom loolu moom ñëpp xam nañ ko. soxla ndox lool boo xoolee liñ doon liggéey boo xoolee tey ji boo demoon si tool bi. da xool boo xoolee tool bi rek nga xam ne ne manqué na ndox. leneen lu nga xamee ni waa Ndiogay jàmbat nañu ko mooy ñàkkum financement ak ku leen taxaw ngir ñu gën a mën a yaatal seen liggéey. état li mu nu war a jàppale mënuñu ko lim ndax première xaalis bu nu mën a liggéey ak ay yoo xam ne yi ba ay kii ay tracteur ki ay financement yoo xam ne yi yu dëgër la ndax. boo xoolee li indien yi liggéey rek nga xam ne financement bu dëgër lañ yore. dèjà yaa ngi gis jeunes di dem ci gaal yi lan moo ko waral ñàkk moyen ci Sénégal moo ko waral. te bu liggéey bi gënee avancé ñu gën leen a taxaw seen xel du nekk ci dem ci gaal yi dem ci mbëkk mi kon état moo war a taxaw xool ñi nga xam ne ñi ngi liggéey mu jàppale leen. fi mu toll nii bu a bi duggoon danañu gën a dimbali état jàppale ñu si ay tracteurs. yeneen ak yu bëree bëri tey jii moyen buñ ko amoon garab yi ngay gis duñ ko dun ko duñ jàpp ay raakol di ko roose te nii nga koy gis ni muy ni muy ni toll ay raakol lañ koy roose. Ndiogay mi ngi bokk ci commune bu Thiep ci département bu Kébémer fii dey suuf si yaatu na lool ci askan wi nanga nu ñoo liggéey ñoom dey li ñu bëgg rek mooy nguur gi jàppale leen ngir nag ñu des fii ci dëkk bi mën a daan seen doole. ginnaaw njogo ñu dem ca gaaya xam ngeen ne ma nga nekk ca commune bu euh, Dagana foofee nag ñi yëngu euh, ci wàllu euh, tomate ñoom ñooñee nag ñoom ñoo nekk ci ay njàqare jàppale ne ba suñ joon yàllaay tey ñu ngi xaar li nga xam ne nag moom moo di aw jiw ngir rek ñu mën a wëyal li nga xam ne moom moo di saison bi dugg nañu ci li nga xam ne nag moom moo di tool yi ngir fas yéene yëkkati seen i ay kaddu seen i jóob Habib Seck ca bët gànnaar bu réew bu béykatu tomate yi nekk ci gaaya jamono jilee mer ba futu la ñu def ñaari weer a ngi ñu daal di bay si lu jëm ci wàllu tomate bi waaye ba ñu ngi xaar wàllu engrais bi ñuy nag loolu mooy naqar tax ñu génn seen i wane seen naqar depuis deux ñu ñu répliqué tomate mënoo am engrais te tomate trois mois la yem donc lii continué na inutile kon ñuy il faut kon ñu géem a dugg si gaal yi def ñu gars yi def clandestinement boo dee muy sa sens parce que ku amul loo doo mën toog ci bërëb bi naa dara ci seen i kàddu juróom-ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ci ay hectares daal nañ ko bay waaye bu fekkee nii nguur gi defu ci ay jéego dina nax saay même cinquante pour cent jotuñu ko donc mu doon jafe-jafe gis nga tey ay ndaw rek fi nekk mbay rek ñu ñuy yaakaar kenn demul si gaal yi dem Espagne wala feneen donc bu mbay mi sooxee da leen di pousser ñu dem à l'étranger. ñoom ñu ngay ñaan ci wàllu kilifa yi ñoon di saafara ci mbir mi na mu gën a gaaw ndaxte ñetti junni ci ay tonnes la ñu bëggoon ci engrais waaye junni kott la ñu daal di gis. sunu naqar wax ni état du Sénégal engrais bi fan la nekk soit ñu wax nu soit ñu wax nu si fournisseurs yi nekk wala état du Sénégal moo nangul génne engrais ñu xam ne mbéy mi arrêté na wala bàyyi noonu béy ñu seet sunu yeneen moyens yu ñu mën def bañati bay. on bëgg nañu mooy ñetti junni tonnes la ñu soxla woon waaye état bi junni la ñu jox xam ngeen loolu mëtul dara ndaxte boo ko xoolee ci téeméer boo jël juróom benn fukk fanweer yi ak juróom ñett cote la ñu jot kon ni ñu jàppale ci na mu gën a euh, mën a doon loo xamante ni day téye xale yi ci gox bi 10 pour cent des jeunes ñoom ñi nekk ci gaaya génn wane seeni naqar nee nañu dëkk bi léegi ñëpp dañuy bay téeméer boo jël ñaar kott ñoo ciy def ci yeneen ci liggéey ñu gis ne nag bu fekkee ne lii dakkul daañu génn ci mbedd mi wane waat seen naqar ci beneen anam aywa ginnaaw gaaya ñu dem ca diwaan bu euh, Kédougou waxtaanee li nga xam ne moom moo di euh, site d'orpaillage yi xam ngeen ne la fay xew mu di ay njombe bari na defkatu ñaaw teef yaa nga fa tax na itam lu ni mel la ñu bëgg rek euh, mu dal di dakk wan leen ginnaaw rawatina la ñuy def ñenn ci ay soxna Ibrahima Jabaxate moom lañuy àndal ca diwaan bu Kédougou ak lu ko wër. benn waa moom li ma wax ne ma ñëw jàppale kii jabaram pour salon quoi léegi ma ñëw fii. lii mu waxu ba mu <laughs> dafa wax na ne ma ñëw jaay sama bopp. ma ne déedéet loolu moom du loolu la nga wax ma balaa ma topp la ñëw fii. kenn la ci victime yu bari ci business sexuel buy gën di law ci juraa yi nga xam ne ñoo sax fii ci région bu Kédougou ci xale yi jigéen yi taxawaalu ci juraa yi. ñi si bëri ñëw seen coobare bopp ndaxte ay proxénètes ñoo laal seen pexe jële leen seen réew indi leen forcé leen pour ñu jaay seen bopp fii ci biir juraa yi mooy ëpp na ñaar téeméeri wala ñetti téeméeri yoo xam ne ñi ngi toll ci diggante fukki at ak juróom ba ngi ci biir site d'orpaillage bi te nekkoo ñu fa seen sago ñu bari dañoo jàppal seen sago lañu fa nekkee waaye nekkoo ñu fa seen sago ndax da leen a jëlee fañ leen euh, Nigéria lañ leen jëlee wala ci yeneen réew yi nax leen ne bu ngeen demee Sénégal da ngeen di liggéey ci ay ay ay site ci or bi da ngeen di liggéey ci ay salon de fekk nag amul bu ñu ñëwee fii ba fii nag ci lañ leen di xamal ne leen ne da ngeen am bor boo xam ne da ngeen ko war a fay ñu ci bari dañ leen wax da a ne li ngay liggéey yëpp da nga koy fay da nga koy euh, am ay jeexital ci yaramu ci wér-gu-yaramu doomu aadama bi ci jamono ji dina jafe pour jaamarloo ak na ay réseau yi lëkkaloo ci diggante réew yi dañoo dem ci dëkk yi nga xamante ne foofu la ñu ne foofu la ñuy commencé liggéey bi donc bi ñu demee ci dëkk yooyu nag dañoo dajale ñëpp population yëpp ñu ne leen nekk dañu bugg a mettre benn comité boo xamante ne dafay saytu ñi ñi xale yu jigéen yi nga xamante dañoo nekk ci situation wala nit ñi nga xamante ne dañoo nekk ci situation boo xamante ne ñoom dañ leen a kon dañ leen di exploiter donc ñooñu ñu former leen bi ñu leen former euh, wan leen naka la ñuy approcher nit kuy am jafe-jafe wan leen naka la ñuy waxtaanee ba dalal nit won leen naka la ñuy waxtaanee ki koo xamante ne dafa ñëw euh, dënki la boppam donc ñooñu la ñu formé yemuñu foofu parce que ñi nga xamante ne noo takk der yi ñooñu aussi euh, formé nañ leen ci situation bi pour ñu xam projet bi mun a intervenir ci projet bi. li tolloo ci ñaari téeméer xale yi jigéen ak juróom-ñaari liir jot nañ leen foqati ci ay loxo Proxénète indi leen ci centre d'accueil d'orientation et de réinsertion socio-professionnelle bi nga xam ne moo nekk fii ci diwaanu Kédougou. maanaam génnee nañ ñi lu mot ñaari téeméeri xale yu jigéen yoo xamante ne ñu ngi nekkoon ci ay loxo jàmbur di liggéey di fay euh, léegi nag ci biir ñaar téeméer yooyu nag euh, juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett yóbbu nañ leen Nigéria ak juróom-ñaari xale maanaam ay bébé donc fi mu ne nii ñu ngi yore ñaar fukk ak juróom ñoo xamante ne ñu ngi leen di préparer pour ñu ñibbi ñu delloo leen seen i dëkk euh, Nigéria pour ñu mun a defi leneen. donte sax am na ñuy jëm pour jàppale xale yu jigéen yi waaye fokk réew yi nga xam ne ñu bokk CEDEAO lëkkaloo pour génn mun a xeex bii xeetu business bi nga xam ne mu ngi gën di law ci biir jura yi nga xam ne ñoo nekk fii ci région bu Kédougou aywa lu ni mel nekkoon ñaareelu bi pàcc xibaar yi egsi nañ ci ñetteel bi pàcc xam ngeen ne waxtaanee li gën a fës ci li nga xam ne euh, moom moo di euh, ayu bés bi dañuy taxaw ca jëye ja nga xam ne nag euh, moom moo xewoon ca Sogas jàppale ne ñaaru liggéeykat yafa kenn ki moo tër moroomam daal di koy faat ñu dikkaat ci jëye ju ni mel abi fay lañ ci àndal ginnaaw loole moo fa delluwaatoon. Sogas tey nañu yeewoo tiis na lool. Abdou jow mii la Abdou Mbaye mii faat ñoom ñaar ñi ay bopp ak mbak lañ doon fees fii ci chambre bovin yi la leen boole ñu ne koppar la toll na ci ñeenti junni ci problème mu téléphone la sookee ko ma ne leen lan moo ñu ne benn booy lan ren ci saal ma leen ban booy la ñu ne ma sa jarbaat ma ne ko sama jarbaat ma mu ne ma waaw ma ne ko loolu nekk loolu nan la mën a nekk ne ren bi mel kuy ren ay xar xanaa xal moo yooyu ren waaye nit nga ren di nit te eh, ñoom xale yi bi ko kenn ki moo ko ëpp doole bi mu ko téye sax ñoom dañu yaakaar na day fo ndeket bi mu tëralee nag comme suñuy paaka dafa ñaw nag eh, ndekete ndekete def na musiba musiba boobu police nag euh, commissaire de Pikine ak euh, la police scientifique ak les sapeurs pompiers ak euh, ñi ci waroon taxaw yëpp ku ci nekk sa taxawaay bi nga waroon taxaw taxaw nañ ci ñii la doon àndal di liggéey fii ci biir salle bii lañ doon feesee tey ba mu xëyee song waa ji faagaagal ko ñoom ñi ñëpp ñu sa ngéem mu ngi ma mais man moom ñoom ñaar jàmm laa gis ñoom parce que ñoom ñaar a bokk benn liggéey bi ñuy liggéey man damay fees ñoom dañuy fees bopp mais wax dëgg yàlla man ak ñoom ñëpp fu ma leen fekk damay mbalagante ñoom kafre lii am nag yéem nañ ñëpp xamuñu la moo ko boole comme nii ah nii la fi ko ñu ñun ñëpp waaw ñoo bokk bokkandoo nekk ci biir saal bi lii lañ ci xam man ak Abdou Diaw ñoo bokk fu ñuy sumeekoo man ak Abdou Mbaye bokkuñu fu ñuy sumeekoo mais ñoom ñaar ci biir salle bi ñoom ñaar ba ñu ñi dajee ba lii amee gisuma leen fu ñu jàppantee waa dama jékki-jékki rek embuscade bi am nii lañ ci toll. ma ko doon dégg rek ma woon man dañ man bañ naa sax nit dañ ko rey du ma ko sax gëm mais tey gëm naa ko quoi ndax gis naa ko bu am na tey laa ko yëg li ma la mën a xamal daal ki dem moom sori woon na trop ci man parce que dafa doon dimbali sama liggéey quoi franchement léegi fekk mu rendel ma ko def ma lépp mooy ñëw rek fees wallahi ba tey ci fajar gi rek communiqué communiqué ñëw police scientifique bi itam teew ak sapeur pompier def lépp la ca war jël néew bi yóbbu ca l'hôpital. xale boobu ñàkk ci bakkanam wax dëgg yàlla mu nekkoon fii ak ñun ñu dund ñu toog weer sax ba ñu liggéey loolu moo ñu doon gënal. aw l'enquête ñu ibbi ko ci. tey biir seeraas liggéey yi ñu arrêté ko. ñu waxtaanee ña doon dem ca màggalug euh, Poroxaan ginnaaw itam accident boo xamante ni am na ca yoon wa lu toll ci fukk ak ñett ci ay doomi aadama euh, daal di ci ñàkk seen bakken mu doon euh, ak ñaari oto yoo xamante ni jot nañoo laalante fa tolloog nebe ci yoonug Gosaas bi ñu dëkkaat ci lu ni mel fàttali leen ko ànd ci ak Babacar Diouf. fukki nit yeeg ñaar ci fukk ak ñett yi ñàkk seen bakkan yi ci accident wu Nebbe bi yépp ci benn quartier bi la ñu jógee ca Touba dañoo duggoon seen oto di dem ca màggalu Poroxaan. daare bu doon ziare chaque at dem Poroxaan mu nekkoon ñaari oto benn oto bi daanu ñoom ci treize décès mais douze yi moo dëkk kon bi wax dëgg yàlla métti na lool foo natt métti rek weesu na ko. mais di boobu léegi ñu ngi ci hôpital bi ñu ngi dëkk Touba Ndiarème olom ko. ba nu ko yëgee xarit yi ak wajur yi ñëpp a fëx daw dem ca hôpital ba. ca morgue ba ak ca service d'urgence ba ñoom de lenn rek la ñu bëgg di ñaan nguur gi mu gën a dugal loxoom ci mbir mi ndax mu gën a mën a woyof ci seen i kaw. ñoo xam ne ñu ngi sëf daal sonn trop am na ñoo xam ne ñu ngi nekk fii ñu ngi lancé appel état na ci dugal loxoom bu baax a baax a baax a baax. ci service d'urgence bu hôpital Ndeye Loko bu Diourbel dara ñu ko fi. docteur yi ñu ngi def seen kéemtalaay kattan la ki jiite service d'urgence di docteur Dieng xamle. ñoo xamante fukki nit ak benn yoo xamante ne déjà dañoo ñàkk seen bakkan balaa ñoo laata egg si am na également ñaan ñoo xamante ni vraiment dañoo ñëwoon ci situation grave notamment ay gaañu gaañu ci bopp. Euh, loolu moo tax finalement dañoo mujj a dañoo mujj a wàññeeku balaa ñu fay am 30 minutes sax dañoo mujj a wàññeeku. donc euh, am na tamit ñoo xamante ne actuellement nii ñu ngi en hospitalisation am na koo xamante ne moom mu ngi ci euh, situation bu grave parce que actuellement mu ngi entré réanimation ci réanimation bi lañ ko entré mais état stable na daal am nañ ci yaakaar bu baax a baax euh, dina dina kii dina tane incha allah ba jóg ñi ci des tamit ay blessé lañ am nañ fi ay blessé yoo xam ne actuellement ñu ngi hospitalisé fii nii ci ci service bi donc ñooñu dañuy présenté wu ay ay damm-damm ñi seen loxo yi wala seen tànk yi ñooñu ñu ngi en hospitalisation et dinañ leen jël en charge. accident bi faat fukki bakkan ak ñett di woowaat chauffeur yi ñu gën a def ndànk ci kaw yoon yi. aywa mbokk yi egsi nañu ci ñeenteelu pàcc ci do jotaayu xibaar yi xam ngeen ne moom mooy euh, gëstuk euh, bés wi tey jile euh, daañu taxaw ci li ñu dippee li nga xam ne moom moo di infographie ndax xam ngeen ne équipe nationale buy Sénégal bëri na ci ay mayo yoo xamante ni nag dañu koy floqué tax na itam rédaction bu télévision Futur Média taxaw seetlu ci bile métier nan la koy amalee ak ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo ci yëngu Awa Signaté ak Pape Fall ñoo daj ak ñoom ñu seetaan. ci benn daara bu ñuy tàggatee ay ndaw fii nag infographie dafa bokk ci li ñuy jàngale ñu fekk ko mu nekk ci biir classe am monsieur Diop nekk formateur en infographie nekkit benn activité bi nga xamante ne ci dessin la koy jaarale xarañ yu bees yile waaye nag infographie dafa wute ak sérigraphie. infographie su ma koy tënk ci wolof. moom mooy euh, euh, science bi nga xam ne nii moom moo ñuy permettre ñu liggéey ci lépp lu nga xam ne ni moom mooy image numérique. comme science la boo xam ne nii day liggéey ci wàllum communication. dana nu permettre par exemple ci entreprise nga mën a gérer communication visuelle entreprise boobu. sérigraphie nekkut ci biir infographie mais métier connexe la. parce que da mën nga noon infographiste après doon sérigraphe. sérigraphe moom mooy ki nga xam ne nii mooy day imprimer ci n'importe quel type de support. léegi conception bi nag infographiste moom moo koy def. métier bi nag nekk na li nga xamante ne ndaw yi taamu nañ ko lool ndax boo amee ab xarañte ci infographie liggéey dalay yomb ci mim réew laaj bi mooy est-ce que ngir nga nekk infographe dafa laaj nga am xam-xam bu màcc ci woowu le képp nga xam ne nii créatif nga te am nga ay prérequis en informatique war nga mën a def infographie parce que liggéey bi lu ci ëpp créativité la donc base bi nag informatique la moo tax il faut nga am base informatique pour mën koo def waa débouché yi bëri na su ma ci jëlee benn rek lu mel ne community management moom mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàllum réseaux sociaux yi lu ci ëpp seen base formation infographie la. étudiant bi nag dafa jóge ba Commerce ngir mën a spécialisé wu ca infographie ba noppi dellu ca dëkkam ndax mi ngi xamle ni moom réewam ñiy jëfee lii di infographie spécialité boobu bëriwu fa. chez moi au foofu si suñu réew di Comores daanaka bëriwul ñuy def métier infographie te ñenn sax ñi ko fay def njëg yiñ koy amalee dafa xaw a cher loolu moo waral ma ñëw fii ci Sénégal jàng si li nga xam ne mooy métier infographie gannaaw bu ma delloo mën a dimbali population bi nga xam ne soxla nañ ko lool. préféré c'est pour cela qui m'a poussé plus pour venir apprendre ça. li jaaseem ci infographie. moom entrepreneuriat lay def infographie bi nag nekk passion wam mi ngi xamle ni lii di période campagne bi ñu dëgmal ak Coupe d'Afrique des Nations bi ñu nekk ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ndax ñaari événement yi li dinañ ci defar ay mayo ak ay t-shirt yu bëri. lépp loo xamante ni affaire design la dama ko yàgg foowee moo tax ma xëy rek ma ne pourquoi pas bu ma paree jàng ma dem inscrire def formation infographie trois ans dina am sama diplôme. exercer wu si métier boobu noonu parce que moo tax nag ma dugal euh, jéem a créer benn marque boo xam pour sama raison sama activité principale si entreprise bi mooy que ne man infographe la dañuy dagg euh, teg ko si maillot bi impression lépp loo xamante ni daal communication la si visuel man loolu mooy sama activité période daal yi ñuy gën a sollicité mooy euh, événement yi surtout loolu jëlee ko CAN bi mondial bi événement politique politiciens yi surtout loolu loolu def ñuy apporter lu bëri surtout ci côté élection yi ñu jëm nii. waaw alhamdulilah mooy dox nañ c'est grâce tamit à l'équipe nationale maay félicité gars si seen performance bu ñu nekk def euh, Côte d'Ivoire fële ne nele mooy moom cher na seerut gars ñoo ngi koy jënd te bëgg nañ Sénégal ñëpp sol maillot ñu doon benn supporter gaynde yi. infographie nekk activité bu dox ci période bi ñu nekk muy Coupe d'Afrique des Nations ndax mën nañu ne infographie yi. ak sérigraphie ci seen traite la ñu nekk ndax flocage mayo yi lee jaajëf xawa signaté ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko coupe d'Afrique boobe la ñuy des delluwaat ca Yamoussoukro fekkaat fa ki nga xam ne moom moo di euh, Mamadou Ndiaye mu ñëwaat ci conférence euh, de presse d'avant match bi nga xam ne Aliou Cissé daal na koy amal du euh, maa ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga baaxee ñu xibaar yi waaw jërëjëf euh, Cheikh ñi ngi comme ni ngeen ko déggee ci conférence de presse euh, d'avant match bi comme ni ñu koy baaxoo di defee gannaaw euh, waajtaayu match Sénégal Côte d'Ivoire huitième de finale yi tey Aliou comme ni ñu koy gisee saa su ne depuis début compétition bi mu ñëw confiant am yaakaar ak ci équipe bi mu yor mais surtout mu ànd ak kii di mu Moussa Niakhaté di défenseur bu nga xamante ne tey jii tamit wax na équipe bi li ci gën a am solo mooy ñoom ci seen bopp la ñuy focus Aliou Cissé loolu la xamle ci waajtaayu match bi leneen li mooy li nga xamante ne mooy blessure euh, Pape Gueye ñi ngi ko njortul am ci lu leer fii ak ngoon Euh, ndaxte seetlu nañ ni depuis bi match euh, bi ñu génn jeexee ba léegi dafa am gaañu gaañu ñëwul séance d'entraînement yi mais Aliou Cissé xam na ne ne fii ngoon lañ ciy gën am lu leer ndax dina bokk ci match suba bi li ci leneen li ci gën a am solo mooy euh, lii weesu weesu na fi mu ne nii beneen Sénégal la wala beneen équipe nationale bu Sénégal la ñuy gis ci compétition bi noonu la ñu tàmbalee te contre Côte d'Ivoire xam nañ du yomb ndaxte dinañ ñëw ak ay seen supporters lii nga xamante ne ñu ci nekk comme ay enjeu mooy fi mu ne nii nag gagné ngir des fii buñ la gagné da ngay ñibbisi loolu Aliou Cissé wax ci conférence de presse bi en attendant ñuy déglu euh, di xaar euh, sélectionneur ivoirien bi nga xamante ni moo fas yéene ñëw daal di amal moom tamit séance de presse euh, conférence de presse d'avant match am jàkkaarloog ak taskatu xibaar yi. jaajëf Mamadou Ndiaye ñu sant ko bu baax a baax euh, gërëm ko moom ak suñu envoyé spéciaux yi nga xam ne euh, ñoo ñu teewal euh, ca Côte d'Ivoire Mamadou Ndiaye maam Fatou Ndoye ak itam Bissane Ndoye ñu sant leen bu baax a baax gërëm leen mbokk yéen itam naka noonu jaajëfal leen ci seen teewlu dig daje ngoon incha allah ak rédaction bu télévision Futur Média 19h30 dinaa fi teewaat jukki leen xibaar yi ci kàllaamay ko ci 20h itam daañu ko defee noonu ci français lu mooy loolee des leen di wéy ak programme bu télévision Futur Média jaa jëf mbokk yi ñu yendu jàmm